Euh, pour en revenir à la CPI dama doon euh, waxtaan ak kuy euh, un avocat boo xam ne dafay dafay officier au niveau de la CPI mu xamal ma ne souvent CPI dafay saisiru dafay dafay dafay def dafay saisir bu fekkee ne la justice du pays de l'état partie. c'est le principe de la subsidiarité. waaw la justice ah. de l'état partie. Euh, jëlul affaire bi en charge sànq wax nga des enquêtes sont sont sont ouvertes mu am une polémique boo xam ne euh, bari na euh, mu jëm ci ay waxu nervi ay waxu nit ñoo xam ne dañoo infiltrer ñu ne les forces de défense et de sécurité et du côté de l'opposition ñoom jàpp nañu ne ñooñu ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo reyaate yu bari Euh, ci ñoom la ci ñoom la ci ñoom la jëkkee ministre de l'intérieur dans un premier temps euh, rejeté na loolu euh, mais à la fin de la fin on nous di que il y a des Sénégalais qui se sont mobilisés pour prêter main forte au FDS par par par patriotisme est-ce que nekkuñu di affaiblir les FDS. cest à kan moo amul nerf bi ci réew mi. ah kan moo amul nerf bi ci réew mi. mais est-ce que nekkuñu di affaiblir. non defal naa non defal naa defal naa defal ah, naa Maymuna kan moo amul nervi ci réew mi maa lay laaj ñi wax ñëpp dans l'opposition ñëpp amuñu ay nervi ñëpp am nervi kan moo amul nervi ci réew mi dangay ngay toog ñu rey la da ngay toog ñu rey la comme léegi ñëw taal kër rey nit moo fi xew dangay ngay toog ñu rey la attends faut réfléchir kan moo amul nervi non faut mais mais justement est-ce que FDS yi est-ce que du ñoom ñoo war a yor lu monopole. est-ce que du l'État moo war a yor. le monopole FDS dañu am limite on est dans un État démocratique réew la moo xam ne dañuy respecter normes yi en matière de maintien de l'ordre xam nga bu ñu nekkoon ci dictature problème amul da génn balu fetal yi ku manifester nga rey ko xam nga la moo tax FDS yi am problème parce que normes yi ñu leen tegal ñu war ko respecter pour maintien de l'ordre moo metti boo nekkee dans société démocratique xoolal dañ ni la moyens yi ngay utiliser maanaam jumtutukaay yi nga yi ngay utiliser dafa war a tollook menace bi maanaam dafa war a tollook ñi nga xam ni ñoom nga ñoom la jàmmaar lool moyens yi ñu am pour pour yàq loolu moo tax boo nekkee dans un pays démocratique nit ñi mënuñoo mënuñoo mënuñoo jël fetal est-ce que dégg nga wax bi mënuñoo jël fetal ils sont obligés ñu jël les moyens conventionnels ay gaz lacrymogène ay drone et cetera mais loolu dafa jafe boo ko yoree pour contenir nit ñi tu comprends. mais Yérim li ngay wax ni c'est grave. quand tu dis que FDS dañoo am ay limites mënuñu yor fetal donc pourquoi donc dañoo war a. permettre ñeneen ñu yor fetal ñoom duñu utiliser fetal lu dul en cas de légitime défense xam nga loolu. waaw je sañ ñoo utiliser fetal lu dul bu ñu jàppee ni kii daf leen di rey tu comprends. mais loolu taxu ja maintien de l'ordre bi jafe. waaw mais est-ce qu'on doit autoriser des Sénégalais non initiés ñu yor ay armes. non waxuma loolu di indi confusion xam nga ba léegi nag yow yaa ngi def confusion comme waa Pastef yi dafa mel ni Pastef seen propagande bi léegi dafa dafa dafa dafa wàll ñëpp noonu non c'est vrai parce que li ngay wax ak li ma wax du benn. dama la bëgg a wax lan moo tax FDS ci maintien de bu ñuy am difficulté. parce que boo nekkee dans un pays démocratique nga respecter les droits de l'homme tu comprends mais Guinée problème yooyu amu fi de da ngeen di manifester cent cinquante morts Iran nga manifester cinq cent morts parce que ay dictature lañ léegi dañuy jël dóor ba rek teel teel teel wax ji jeex fii nag comme démocratie la comme il faut nga respecter les droits de l'homme obligé nga jël ay moyens yu conventionnels moyens yooyu nag boo koy jël da ngay dem sa ay gars lacrymogène jeex sa ay kii xam nga dafa metti boobu moo gën a metti léegi loolu bu amee affaire di déborder nit ñi dem kër jàmbur yi di ko lakk di ko taal ñëpp gis ko ñuy agressé nit ñi di wàcce ay nit di di taal seeni oto ak tout nit ñi dañuy toog xaar ñu rey leen fii kan moo fi amul nervi fii ñëpp am nervi opposition yi sax ñoo ëpp nervi waa pouvoir bi. waaw mais